fidèle internet di ñuy seetaan ci plateforme yi fi nekk ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax euh, di ko doole inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ginnaaw bi nga xamante ni kii di yaadoo génn na àdduna te nag nekk li nga xamante ni moom moo di bisu ñaan bi ñu jàkkaarloog awa ba mi xamante ni si booba ba léegi ñu koy gis mu ci dox ay jéego malgré bi ak li nga xamante ni lépp dikk na ci moo ko àndoon ak moom awa leen di fay maa ngi leen ñëpp di ziar ñëpp baalu ñëpp àq tey baal ñëpp àq di ñaan yàlla ki nga xam ne moom moo ko yàlla yërëm ko xaare ko àjjanay firdawsi mu eggalee ndawam àjj na ci barki say alors lan nga nu mën a wax ci ki nga xamante ni moom moo di Yado malgré seen diggante kenn dootu ko laaj te parce que gis nañ bu mu feebaree boobu ba léegi nekkoon naanoo yaa ngi seen diggante. waaye Yado moom àdduna bi yëpp xamoon nañ lu ñu mel nekk nit baax nekk nit ku oyof nekk nit koo xam ne fépp fu mu nekk ci àddina rek daf agréé rek moom moo ko fay téye donc dina diis dina diis tuuti nag pour may wax ci moom parce que yaakaar moo tas mën naa ne parce que yéene bi du woon lii yéene bi du woon lii yéene bi moo nekkoon tey li ma doon promettre Sénégalais yi mooy que dina tane ba dellusiwaat ci liggéeyam dina tane ba ñëwaat ci nit ñi toogaat ci écran yi di leen santal boppam di leen gërëmal boppam donc yéene bi du woon lii mais lii la yàlla nam mu donc te yàlla kenn du xëccoo ak ndax ñun xamuñu tey la xamuñu suba la donc tëddaay bi yàggoon na métti woon na mais nag wax dëgg yàlla leneen lañ doon xalaat ci moom fekk parce que yaa dugg boo ñëwul gis ko rek danga naan moo ngi tane le fait nga koy dégg téléphone rek ak ni muy waxee fit bi jàmbaar bi góorgóorlu bi doon góor nag waaw doon góor donc yaakaar moo tas mais loolu la yàlla nam alors ñu gis bi mu feebaree ba léegi toogoo tëddoo yaa ngi si di dem ak a dikk li nga xamante ni moom moo di bi ngeen bokk est ce que da amoon ay rapport yu spécial yoo xamante ni moo taxoon nga taxaw rek di ko jàppale. waaw moom nag yàlla dogal na ne sax mooy li ma doon wax yaa doo dañ doon liggéey te amantewuñu sax contact hmm? numéro téléphone sax amantewuñu ko. Hmm? un jour la ñëw tournage. wax ne nañ ko jëndal téléphone ma ne ko dinaa la jëndal téléphone bi mu toogee ay dur presque ay semaine deux semaines dégguma mu yëkkati téléphone am di jënti sama numéro ne ma xaw ma kan sax ci artiste yi moo ma jox sa numéro téléphone bi nga ma diggoon ma ne ko téléphone bi suba wala ginnaaw euh, allah rabi bi mu si jot bi mu ci jotee nag ci lañ amante contact di déggante mais taxul woon sax mu demee noonu mais la fait dégg naa ne feebar na bu dul dara jullit la bu dul dara ci ñun la bokk te man li ma waxoon rek man yaadoo ñun nit ñi li ñuy gis ci écran yi rek loolu la ñu xam ci moom mais man suñu mësaan toog tournage benn nit rek moo may reetaanloo sama àddina muy yaadoo donc kooku mérité na pour man su tëddee feebar lépp lu ma ci mën ma def ko donc nag def naa ci lépp lu ma mën mais peut-être nii la ko suñu borom nammee woon te fii la waroon yam aussi donc dama koy ñaanal yàlla rek moo xam lépp lu mu bëgg suñu borom defaral ko ko mu xippee àjjana ci barki Seydina Mohamed parce que ba ci gàmm génnee rek sama shootingu gàmmu yi bi ma ko dugalee ndeysaan woo na ma ñun ñaar ñu waxtaan lu yàgg mu ne ma sañse nga sama rakk ji sañse nga ma ne ko billaay ndeysaan mu ne ma baal ma àq wallaahi mi ngi ci dëgg maa ngi ci fen baal ma àq amaana tey wax yu bari soo ko déggee sax bam lay naqari wala ba mu am fenn fu mu toll ci yow rek mun naa am sama feebar na moo tax donc feebar naa ba pare retourné teg leen coono ma ne ko bul waxati loolu ndax bu doon keneen la dama koy def te lu ma ci mën a dégg it dama koy dékku rawatina nag mu nekk yow ndax même bu dee benn fan la bokk nañ ko liggéey donc mu baalu maak tamit mel ne ku gisoon lii ñu waxtaan appel bu yàgg bërki déem boo njaay rek yàggul ci semaine bii nii ñu génn man ak moom déggante nañ téléphone looloo waraloon su may live sax bu ma ñit ñi ne yaa dóor rek man leen mu ngi tane parce que boo ko dee dégg téléphone danga naan mi ngi tane man même bu fekkee ni carrément que dama jàpp dina am ñoo xam ne dinaa leen yónnee pour ñu ñëw di ma ko xoolal pour ñu ñëw di ma ko seet ku ci mel ni sama benn frère mm-hmm. Babacar kooku moom moom moom sax moo ci gënoon sonn engagé mi xam na li may wax ndax man mi doon ñaan edd rek la ñu gis mag engagé mais su ma mësaan pare sax ba fay live bi moom mooy compter xaalis bi mooy jël un million bu nekk mu takk élastique teg na le donc ne ci ne ci maire mu ñëw fii ma présenté ko maire bi ne ko kii sama frère la maire bi def ko doomam bu góor des fois sax maire bi du ma woo téléphone moom lay woo ne ko Babacar xam naa ne instant bi bébé Eva sonn na dem na tournage wala mi ngi nekkoon di live tëdd di nelaw bu yeewoo ne ko sa yaay woo na sa yaay woote na fi xool na noo def waaw ñoom tamit ñu nekk ay gor ñu nekk ay nit yu baax surtout maire bi nag bi mu bi mu ñu bi mu ñu jiitalee ba tey beddiwuñu ci dara wallahi ji bu yaadoo dee dem rendez-vous sax dina ma woo téléphone ne ma bébé Eva yaadoo mu ngi dem rendez-vous donc jàpp naa ne lii rek moo ñu mënoon tàqale ci àddina parce que depuis que ma ñëw fii donc am yu bari yoo xam ne def naa ko ci feebaram bi yaadoo bàyyiwul waaw sama yaakaar tas na daal dama amoon dama amoon yéene mu jugaat barke alxuraan alors lan la la mujjee dénk comme vu que yéen ngi doon déggante ba sax yàggul dara avant que muy décédé déggante nga lan la la mujjee wax. dinaa tane rek yaa waxam yëpp dinaa tane la donc dalay dalal yow boo fi ñëwee sax moom mi nga xam ne moom moo feebar moom mooy retourné waat di def affaire comédie yoo xam ne yow waaw da ngay sax fàttali la fi indi woon waxam yëpp mooy dinaa tane bébé Eva ma ne ko naa mu ne ma dinaa tane de bi ñu ñëwee démb yaay mi ngi ñuy nettali Euh, bërki démb ndax démb la décédé ay 9 ci suba mi ngi mi ngi mi ngi wax ni bërki démb rek dafa dafa génne benn genre sœur naan dama dama bëgg dama bëgg ngeen wool ma Fadel Dakar Buzz ak bébé Eva ndax ñoom faw ma bégal leen donc dama bëgg teg fii nii son indi def programme bu rëy feccal leen bégal leen donc kooku fàttewul waaw fàttewul yaayam tamit nekk gor nekk nit ku baax barke alxuraan démb yaa doo defee li muy def bokk naa ci ñim njëkk woo donc jaarul si man mais moom mu ma lay wax muy sama frère bi moom la njëkk woo na ko xoolal noo ko annoncé bébé Eva donc ñu def ma doom ci kër gi def ma lépp nag mère bi daf may déglu ci lépp daf may xaar ci lépp aussi donc maa ngi ñaan yàlla fépp foo xam ne Thanks,